président Macky Sall dafa paré Un bakanam tek bakanam pour que même mom bu nekul candidat sax Ousmane Sonko bañ ko en 2024 ñun ñu tek suñu téméri bakan pour que Sonko outou ko en 2024. en mars 2015 avons Fek Karim Wade. Diapoko ko Kasobi, un candidat potentiel à l'élection 2019 redoutable candidat adversaire de Macky Sall exilé rendre le inéligible trois ans après mars 2018 un candidat déclaré qui était en tournée de campagne Khalifa Sall nous toroxal ko tëj ko rendre le inéligible trois ans après mars 2021 nous avons président Ousmane Sonko arrêté ko fasse pour rendre le inéligible nous sommes ñu li la ferme volonté de dégager ce régime médiocre ce régime incompétent bandit sadique et sanique pour tout yor réew Nous loolu la ñu bokk ça a réussi pour certains ba ci Barthélémy Diaz maire de Dakar son dossier mu ngi toll ci càppaandaw ga maanaam cassation Si jaaxaanee waxuma la candidat mais Barthélémy Diaz risque même de perdre ses mandats de maire et de député Mimi Touré génn déclaré candidature le lendemain ñu avons ko UGE 2 milliards waaye tey ñu ne ce mascara ce truc de suivi beauté là dafay dem procès loo xamante ni loo xamante Il n'y a aucune preuve palpable bu ko mën prouver Nous nañu da ko procès sama gars yi bu ñu nax suñu bopp bu ñu nax suñu bopp proce bi lenn kese la kon condamné Ousmane Sonko rendre ko inéligible gannaaw bi ñu ko réussir si ñëpp waaye nag dégg nañu suñu président mu wax président Ousmane Sonko nee na bàyyi naa sama bopp yàlla bàyyi naa sama bopp ndaw ñi ñun ndaw yi ñu ne ko procès du am. ndax sa candidature day jàll par force